mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV ak internet yi nga xam ni ñu ngi seetaan euh, Thiénaba TV ak fu ñu mën a toll ci réew mi wala ci bitim réew euh, nuyoo bi ñu ciy jiital suñu kilifa gi ñu toogal muy Baye Serigne Assane Seck di xalif général bu Thiénaba di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci bark seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Euh, jaar ci moom nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi euh, nuyu tamit kilifa aada yi euh, waaye wàcc fii ci biir Thiénaba dellu nuyu njabootam nuyu imaamu ratib Serigne Cheikh Amadou mi nekk imaamu ratib bu Thiénaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi nuyu chef de village Serigne Alsane Niana Seck Euh, ak chef de quartier yi chef de village yi nga xam ni ñoo euh, seetaan Thiénaba TV wala ñu nekk ci réew mi yëpp euh, jaar ci moom nuyu monsieur le maire le première magistrat de la commune de Thiénaba moo ñuy jàllaleel nuyo bi ba ci monsieur le sous-préfet mu jàll ba ci kilifa gi nga xam ni tey moo jiite Sénégal muy son excellence le président Bassirou Diomaye jaaxar Faye di ko nuyu di nuyu waa réew mi yëpp Euh, tey nag ñu ngi toog fii ci kanamu euh, bàyyi Serigne Assane Seck xalif général euh, bu cana ba di xalifa maam Ahmadou Ndack Seck mi nga xam ni tey ndono li ci loxoom la nekk ñu koy ñaanal rek yàlla na fi yàgg te wér ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dëkku maam Ahmadou bu buñ ko waxee xel dafay delluwaat ca ñett ya muy àlluwa àll ba allahu akbar tey Baye Serigne Assane mi ñett yooyu ma wax moom moo ci teg bëtam Euh, di ko sàmm macha allah ndax ndonoom la tey nag mu war a woote lu mag loo xam ni ñett yooyu ma lim benn bi la muy lan muy àll ba àll ba ndax ndono la euh, tey muy woote mbadet euh, mbadet nag toolu maam Ahmadou Ndaak sekk la tey mu nekk ci loxol Baye Sëriñ Assane euh, mu ruuj ko ci ay moyens boppam waaye lépp luñ ca war a def waajal ko ba nawet bi ñëw Baye Sëriñ Assane def na ko kon defal na leen ko yéen ñi jàkkaarloo ak ñun waaye tey nag ñu toll ci bay baxaw bay baxaw kon dugub lañ fa ji Euh, dugub lañ fa ji macha allah yàlla def na taw na euh, macha allah euh, dugub ja sax na la ca des rek mooy wala ci liñ toll mooy ñu jam yóbbu fa ay fas ak ay machine yóbbu fa ay illeer waaye ay loxo ñëw fa ñu song tool ya bay baxaw ba wollet ko macha allah def ko macha allah ngir yàlla loolu rek la ñuy woote moo tax ñu toog fii ci jataay bi di ko wéttali xam naa woote bi nag euh, Aliou Ndoye mi nga xam ni tey euh, Aliou Ndoyeum Cheikhu Thiénaba laa koy tudde tey foo seen bàyyi sëriñ Assane mu ngi toog ci wetam di liggéey liggéey bu mag euh, ci kër gi moom mooy yëkkati woote bi bu paree nag lépp loo xam ni war nañ ko cee teg ci ay kàddu dinañ ko ci teg waaye tamit dinañ tàllal ay loxo bàyyi sëriñ Assane mu ñaanal ñu waaye ñaaxaat askan wi nga xam ni ñoom la ñu jàkkaar lool ak nan la ñu war a waajee jëm ca Mbadet Mbadet nag buñ koy wootee bis bi àllarba la àllarba mooy le 31 juillet 2024 macha allah ñu ñaan rek bu ñu xëyee euh, nañu teel ndax euh, teel bala moo naaj ñu mën a def liggéey bi loolu la ñuy woote kon Alioune euh, yow la ñuy jox kàddu gi waaye ñu ngi nuyu Serigne Madiodia Seck mi nga xam ni tey moom mooy taawu xalifa bi mu ngi di toog ci suñu wet. Euh, gunge ñu euh, macha allah moom tam ñu koy jaajëful baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ni mu ngi koy def ci wetu góor gi euh, di ñu ko defal ñun ñëpp kon kàddu gi mu ngi jëm ci Alioune Ndoye bu ko defee rek mu yëkkati bu wootee bu paree ñu jox Baye Serigne Assane su paree ñu tëj kàddu yi macha allah mottali ci liñ ci war a li muy woote boo xam ni mbadet la di àllarba 31 juillet 2024 mbadet toolu maam Ahmadou Ndak Seck. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul Baye Cheikh bàyyi sëriñ Assane Seck nee na mu ngi yëgal toolu àllarba bii nu jëm sëriñ Alassane Niane Seck chef de village Thiénaba ak mboolem lu mu boot ci biir Thiénaba góor jigéen ak mag ak ndaw teg na ko ci loxo sëñ ñaana mi mu dénk dëkk bi mu yaatalal ko ci buntu kër yëpp ci imaam sëñ Cheikh Amadou ak ñi ko seqal ñëpp nu dem ba Thiénaba gaar Baye Ibrahima Ngom ak waa Thiénaba gaar yëpp bàyyi sëñ Assane Seck moo ngi leen di yëgal àllarba ji Baay Ibrahima Ngom ak waa Canaba gaar yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku dégg oote bi rek teg nañ ko ci loxo Baay Ibrahima Ngom ak waa Canaba gaar yëpp waaye bu ñu nee Canaba gaar nag faawuñ jàll ba Cawaare siyaare Ibrahima Suwaare ak waa Cawaare yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di woo góor ak jigéen mag ak ndaw bu ñu jugee foofu nag faaw dem ba Kër Baara Sarr Kër Baara ak la fa aju lépp. loolu nag buñ koy woote dañuy jaar ci loxoom doomam xaritam sëñ Ibrahima Seck cooti jël woote boobu baayam teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxo mbooleem loo xam ni suuti boot na ko ci ab dëkk mbaa muy dëkkandoo mbaa muy xarit mbaa muy am di jàmm woote boobu teg nañ ko ci loxo Sëñ Ibrahima Seck mu bàyyi Abdourahim góor gi Moodo Mbay ca Mbayeen moom it macha allah bàyyi sëriñ baa ngi koy nuyu di ko ziara di wax ne waa Mbayeen yëpp na maam yi daan gisee waa dëkk ba mu ngi ñaan na leen gisee noonu ñëw ba xëy nuyu bàyyi ba da xulle moom mi chef de village ba ak imaam daam xule di wax ni mu ngi woo waa xay yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn góor jigéen mag ak ndaw waaye xam ngeen bangaaj ak ba canaba dañoo suréewul te sëñ mbusoo be diggante ma xalifa bi rafet lool nee na mu ngi koy jox gëddaam ak wàccuwaayam ak cëram waaye di wax ni mu ngi woo waa bangaaj yëpp yëpp yëpp alaaj njàmme Baye Ousmane Aan moom it macha allah ak waa aanin yëpp sëriñ baa ngi leen di woo ñoom ñi nga xam ne naka jekk buñ musaana otti àllarba aaneen li ñuy wax am càcc dañ koy def teel a xëy fajaru bu waa Canaba ñëwee fekk ñu buddee ñax ma lépp mbaa ñu naaf bu sëñ bi ne lu xew ñun ko waa aaneen dañoo fi jaar sàcc sàcc tool yi ba ñun waa Canaba ñu fi dara loola sëñ baa ngi koy séentuwaat ci ñoom bàyyi Maysa Jóob ca kër Maysa ak mboolem lu mu boot ca kër Maysa macha allah ñoo ngi koy yëgal ba jiiru jëm incha allahu bàyyi si mu bëgg naa waa gis waa Kër Maysa nañ leen daan gisee ci seen jom ak seenu njàmbaar waaye nu dem nag ba gàdd ku ni gàdd rek ni cooti cooti cooti ñëpp la waaye waa gàdd moom dañ caa langaa mbiitu téye ca boof ca xajaluñ ca kenn kon waa gàdd bàyyi si bi ne la mu ngi yónni ndaamaam la sëñ Mor Gueye mu baax ma di ko wax na ko ko waxal mu xaddam imaam ak képp koo xam ne yaa ngi noyee lislaam rawatina waa Ceneba ci waa gàdd waaye dem ba kër Njaga góor gi Omar Ñang mu xàddamu maam Ahmadou Bamba Ñang boobu bu mag boobu ñu ngi koy yëgal moom ak njabootu maam Ahmadou Bamba yëpp bàyyiwuñ kenn kër Ibra Gueye nga ci seen wet làng ak ñoom ñoom di jàmbaar ci kër Seexu Canaba ñoo leen koy yëgal waaye dem ba bul fa góor gi mbay ñing di sa xarit di sa soppi nga xam ko lool bàyyi sëñ bi nee na bi muy nemmeeku mag ñi nga xam ne sawaratuñu ba mu njëkkee gàddu bul fa la ca teg kon góor gi mbay ñing ak bàyyi ma dikke ma fa ñoom ñëpp sëriñ baa ngi jël ab woote teg ko ci seen loxo nañ ko wax waa bul fa yëpp njàmbaar gañ xamoon ca mag ña démb ak barki démb Baye Assane Seck nee na mu ngi koy séentu ci ñoon macha allah waaye nag Ngombel ñu ngi nii di waa kër Seexu Canaba macha allah ñoom tamit ñoo ngi leen koy yëgal ak waa waa Ngombel yëpp ak la Ngombel boot ndiireen ñoom ñëpp bàyyi sëriñ baa ngi leen ko yëgal di ñaan daal bis ba moom mi laay dégg bis bu ne muy wax ni tool yii di tool bu ñuy faje aajo yorul suñu dépasse jëndul suñu ordonnance yorul sunu ndima waaye toolu xettaliku kaay la dana ci xettalee jaami yàlla yi te it ku bëgg a xettaliku gis fooy xettalikoo rek nga bëgg cooti nag ak mbarit fu ñuy xettalikoo la kon alaaj njàmme oote baa ngoog bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn waaye bàyyiwuñu ñan bàyyi suñu bi na mu ngi tàllal loxo imaamu Touba Toul day soppeem di xaritam imaam tin bu yàggul rek dem na fa nemmeeku ko jox na ko loxo di ñaan na ko ko yaatalal ci li yàlla bootal ci ginnaawam lépp te tuubaatul ak la ko wër ndax tool bi suñ ko mosaan di wote doo xam murit doo xam xaadir doo xam tijaan moom daal ku bëgg xeetlu ko rek bu ñu wootee cóote baa ñu woote mbere danga naan kenn du ma fa njëkk ku fa njëkk nag yàlla nga bokk ca njëkk a sédd ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waa kër Mamour xam ngeen sunu diggante ak canaba li bàyyi sëñ bi soññee naan bu fi ñax sax waaye nun suñu diggante ñoom ñax saxu fa kon kër Mamour nga xam ne ci wana gi canaba la ñu bokk ñoom it macha allah njàmbaar gi bàyyi siñ ba xamoon ca maam yi ak bàyya nee na ñoom ñëpp ndaw ña fa ne góor ak jigéen nee na mu ngi leen di séentu ci tool bi te yaakaar na leen waaye xam ngeen kër Abdou Dieye ku miin cuuti rek miin nga leen seen gopp ya te seen mbagg ya fajar ñu waaxu si jëm si cooti ba mbarit bàyyi siñ bi nee na loola mu ngi koy séentu ci ñoom waaye doomam xaritam sëñ Yaaba Diop bu baay Ibrahima jóob bi ngeen xam Euh, Baye As nee na mu ngi koy jox gëddaam di ko laaj naka daara ji waaye mu ngi jël oote bi nee na di ko teg nag ci loxoom na ko ko yaatal ba tund wi yëpp nañ ci jot waaye macha allah kayre góor gi kayre bis bu ne mooy ñëw di nemmi ku Baye As di xool ci lu mu ne ca kayre maam As nee na mu ngi koy seet di seet waa kayre yëpp waaye mu nga cay labal soxna Marème kayre jigéen ju man góor nee na mu ngi koy yëgal ñëpp njàmbaar gam xamoon ci kayre démb ak bërki démb nee na mu ngi koy séentu ci ñoom ak kayri mbulaxte nag waa Kanjeen ya ñoom it kenn demul ñu des macha allah bàyyi sëñ baa leen di woo ci àllarba ji di ñaan ku fi ñëw daal euh, yàlla sa aajo faju ci barke yonent bi te it barab boo fay dem damay wax ni am loo fi wut nga dajee ku koy wut nga dajee ku koy wut ba am ko day dalal sa xel nga jillante ku koy wut day dalal sa xel nga àgg fekk fa ku koy wut day dalal sa xel nga dajee koo xam ne wut na ko ba am ko te ngay wuti day dalal sa xel bàyyi ngay ñing ku ne xam na kooku sëñ Momar Talla Momar Talla fii la maam Talla Seck am àllarba yónnee ca bàyyi ngay ndawal mu àgg wax ko soxla yu góor gu mag ba pare mu yëkkati aw nag jox ko mu dem tuuti mun ko kaay ndongali mu ñëw mun ko wenn nag day naqaree jiital dolli ca wa nag mu dem ba yàgg mun ko ndongali kaay ñaari nag day naqaree jiital dolli ca waneen nag mu dem ba sori mun ko eh ndongali mu ñëw mun ko neel sëñ Thiénaba bu mu fàtte ba muy ñetti yoon mu ñëw ba ci góor gu mag jox ko ñetti nag wax ko ni ko bàyyi ngëyee defe ni ko wenn la ma jox ni day naqaree jiital doole ci wane ni day naqaree jiital doole ci wane muy ñetti nag waaye nee na ma ñetti yoon neel sëñ Thiénaba bu mu ko fàtte mun ko ngëyee moo wax wax ji mun ko waaw moo jëf-jëf jii mun ko waaw maam taal daal yëkkati baaraam ba nii daa ni ngëyee de def naa ko ni aw yoon mu jaar ci pénc ma di jàll jaar ca póot yooyu way te kenn dootu ko téye fi lépp lu ñuy jëf ci kër Seexu Canaba kenn du ci man fin baa ngay ñing loolu nag lii ma wax rek nag jar na daw ñëw mbadit mbadit jar na daw ñëw cuuti alaaj njàmme jërëjëf sëriñ Aliou Ndoye macha allah kon euh, woote baa ngi noonu xam naa tey euh, bu ñu toogoon rek euh, ñu gis ci télévision bi seetaan Baye sëriñ Assane toog ci suñu wet ni Baye sëriñ Assane nee na mu ngi woo jullit yëpp euh, loolu rek da doon doy kon képp koo xam ni dégg nga woote bi lim nag moo xaw a jafe euh, ndax olof dafay wax ni daanu dajul suuf waaye man maa ngi delluwaat di woo képp koo xam ni taalibe maam Ahmadou Ndack sekk nga ak foo man di nekk ci réew mi nga nekk Ndakaaru wala nga nekk fédération daayira bu Ndar wala nga nekk euh, fédération daayira bu Gosaas wala nga nekk fédération daayira bu Jobaas wala Jandeer wala fépp foo xam ni daayiraang fa euh, sëriñ As Seck borom ndigal mi nga xam ne tey moo jiite fédération des daayira Tidiane de Thiénaba Baye sëriñ Assane nee na euh, woote baa ngi noonu ci sa loxo mobilisation baa ngi noonu ci loxo sa loxo ndax nag liggéey ndaw ñoo ko gën a man euh, kon mu ngi noonu woote bi nga jàllale ko ba ci fédération yi nga xam ni ñoo nekk ci daayira yi euh, biir Canaba waa Canaba sekk tey woote bi ñoom ñoo waroon a toog fii woote ndax euh, tey ñoom ñooy dalal gan ñi Euh, ñoom ñoo war a ñoo fa war a jiitu te ñoom ñoo fa war a mujj kon Baye Serigne Assane nee na mu ngi leen di woo yéen ñëpp bàyyiwul kenn bu ñu xëyee rek euh, ñu teel a dem euh, mbadet teeru ñi nga xam ne ñooy jóge fu sori ñëw àndandook ñoom bay tool yi mu set macha allah ñu tàllal loxo yi Baye Serigne bi ñaanal ñu lu mu ñaan yàlla na yàlla nangu ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam xam naa du ñu fàtte waa kër waa Mboulox Tène bu Baye Serigne Mass Dieng yàlla na yàlla yërëm ko mbeewaan wàllu Baye Cheikh Thiénaba ah, moom tamit macha allah ñu ngi woote rek xel dem ci moom waaye ñu ngi woo kon waa Meewaan yëpp ñu kenn bàyyiwuñu waa Mbour euh, di jël woote bi di ko teg ci loxol Serigne Mor Talla mu bàyyi Serigne Ousmane Canaba euh, Kajoor ñu teg ko ci loxol euh, Serigne taala Seck ak Serigne Pape Seck Mourtada ak mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp macha allah dem ba Canaba Gosaas teg ko ci loxol Serigne taala Seck macha allah moom tamit Serigne Mor Talla moom tamit mu jàllaleel ñu ko ba ca tund woowa bu mu bàyyi kenn kon àllarba lay nekk incha allah di 31 juillet 2024 nekk mbayum baxaw macha allah mbay baxaw nag bay ci machine la ak bay ci loxo kon kuy ñëw mën ngaa indaale machine ak fas boo ko amee waaye boo ko amul nga indaale illeer Euh, boo ñëwee rek topp ci ginnaaw yi di defaraat di wollet xam naa Alpha Sarr ñu ngi koy soññiwaat euh, mu mobiliser tamit équipe bu Thiénaba TV ñoom ñëpp rek ñu ñëw indaale seen i caméra ak seen euh, bu fekkee illeer am na fa macha allah ñu ñëw rek daal ciy jàpp ci liggéey bi loolu ci ndigalal Baye Serigne asan Seck lañ koy lañ koy wootee kon du ñu def rek Alioune mm-hmm. bu fekkee ni mat na ñu jox Baye góor gi. waaw soññ rek Talla Xaar Ñang. waaw bu président xombal daayira xombal. Mm-hmm. Euh, ak waa xombal yëpp mhm. euh, taala moom <laughs> moom xanaa soññi daa mënta ñàkk rek mhm. waaye fàttewul daray canaba mhm, waaw maa ngi koy soññi waaye xam nga am na suñu jàmbaale ne fii ci penk bi soriwuñ ñu koy waa njooj waa njooj nag bu ko waxee bu ñu neexee jaarale ko ci doomam sëñ Seexu Amadou Seck imam ndax day mat ndax péete mënta ñàkk te ay péeteem lañu kon waa njooj ñu ngi leen di nuyu waaye ku ne xam na diggante Mirina Sarr ak waa Canaba nir mm-hmm. na saar ñu ngi jël oote bi mm-hmm. ñoom it jox leen ko mm-hmm. di wax ne nañuy séentoo ñëpp nan yaakaari ñëpp ca tool ba nir na saar noonu leen yaakaari waaye ala njaam boo doxee tuuti rek njama njamaa ci sa góos oh, njama ñoom it di ay jàmbaar ci tool bi waa ñoom it ñu ngi leen di soññi ñoom it ci tool bi di wax ni bàyyi seen Canaba ni mu ci yaakaar ñëpp noonu la ci yaakaare waa njama tool bi nag li ma wax rek mhm. amul murit mhm. amul xaadir amul tijaan mhm. toog nañ fii maag moom benn taalibe sëñ seex mu sëñ saaliw nettali ko maag moom la ko nettali ni dañoo dem ziyaar yi sëñ sëñ seex am nañ ko doon liggéeyal bi ñu paree mun leen ndax sori jigée ngeen seen ba mu ni leen waaw mun leen ba ndax am na tool yi tool yi àllarba ñu ne quoi mun leen baa yéen dem ca tool ya fii lañ ko nekk man ak yow ñu ne ko waaw mun leen man sax bu ngeen yeexee mhm. di ngeen ma fekk ca toolu àllarba ba mhm. bu leen kan kenn mën ca toolam ya mhm, kon foofu la ñuy jaar rek di soññ mbooleem kuy taalibe Serigne Touba te nu dëkk ak yi tund wi Baye Ass nee na ñëpp la woo bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn kilifa yëpp gauche ak droite la ñuy doxee euh, macha allah kon nee na mu ngi nuyu ñi nga xam ni wàllu wàllu àddina ñoom la teg ñoom la ko teg seen loxo doxale leen seen diggante mm-hmm. ak ak ak gouvernement bi ak lépp luy doxal wàllu àdduna ci dëkk bi mm-hmm. ka ca njëkk nag mooy monsieur le jaañ mm-hmm. euh, Talla Diagne euh, daas daa mënta ñàkk ci paaka rek waaye ku xam taala diggante mag cóoteeg mbaret xam ne buñ koy yëgal ab soññe la alaaj taala jaañ euh, sa waajur nee na mu lay bàyyiloo xel àllarba ji na nga mane ak la man lépp nee na mu ngi la cee séentu macha allah waaye nee na mu ngi koy bàyyiloo xel doomam bàyyi faalam nga xam ne moom moo wax ci boppam ni bu fekkoon dañuy am am Seex Béthio moom lay doon muy président Abdou Gningue Baye As nee na mu ngi koy yëgal tool yi di ko ko bàyyiloo xel ay maamam jàmbaar lañ ci woon ay baayam jàmbaar lañ ci woon nee na mu ngi séntuñ jàmbaar googu ci moom waaye ñoom ñëpp seen rakk yi ku mel ni Gora Ndiaye nga xam ne moom it sët la ci xalifa bi bàyyi ko xel lool bàyyi sëñ bi nee na mu ngi koy bàyyiloo xel àlarba jooju waxul sax ñoom waaye ñoom ku ñu am mm-hmm. bàyyi si million jàpp ci loxo mu ñëw mm-hmm. waaye doomam sëtam xaritam mm-hmm. muy xalifa Ibrahima Ndiaye eh, Thiénaba Horizon nga xam ne bu nekkee ca kaw xel maa ngi ci Baye Ass bu nekk ci suuf bu nekkee ci suuf it xel maa ngi ci Baye macha allah waaye kuñ ni kuy samaam ñu ne Mamour Gueye boo meleen noonu ci seexu Thiénaba wàcc nga xalifa samaam nee na tool yi moom danaa yéene lu rëy moo tax du la ci yërëm nee na na ko def na nga ko ci waaye koo am na nga jàpp mu ñëw waaye Babacar Ndiaye mhm. mi nga xëy sëñ bi daajal ndox mi dénk ko ko mu teel ko ko di ko ci liggéeyal mhm. Babacar Ndiaye bu Canaba Gaar mhm. sëriñ baa koy bàyyiloo xel macha allah liggéey bi di ko bàyyiloo xel àddara ba ji ak kuñ ko sëqal Mbay Saar Kan bi nga xam ne mooy kenn mënu ko ci sëriñ bi jamono bu ne mu ci moom di ko nemmiku ak di ko jàppale ak xel mu rafet mu dox digganteem ak Bougane Gueye mbay bàyyi suñ bi nee da lay rëy moo tax bis bii du la ci yërëm na nga ko fa fekk ak ko am Moussa Ndongo mi nga xam ne macha allah bi bay Abdourahim toogee moo mooy xool be yàgg mu ne xale boobu sat Ndongo daal daa baax lool na bokk ci liggéey bi collectif googee bi bàyyi as ko da koo renouveler kon Moussa Ndongo bàyyi suñu Assane nee na yaa ñi nga seqal wàllu Pastef yëpp bàyyi suñ bi ne mu ngi leen di séntu ca tool yi ak ku am lii daal la taal sekk ni woon saab taali bi du ma ko yërëm ndax damaa xam fa ma jëm ak moom mhm. waaye baa as ne ci yërëm kenn ndax ku ci ñëw daa xam la nga ciy amee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi seexu canaba ne muy wax ñëpp asalaamaaleykum ne maa ngi ñëpp waaye maa ngi siyaar yi ñëpp nee na àllarba jooju mooy ji ma jëkk a woote mooy ji a woote ci sama xilaafa sekk nee tool boobu. dees koy jàngat. dees koy jàngat. tool boobu. nee tool boobu. moom la Amari Ndaak daan bay. moom la maam Amari Ndaak Seck daan bay. di ko dundee. di ko dundee. booba jamono ubbi koogul. booba tool boobu. nee tool boobu. sama yaay nettali na ma ni. sama na ma ni. Cheikh Thiénaba Amary Ndaak. Cheikh Thiénaba maam Amary Ndaak. daawul yendu ci kër gi. daawul yendu ci kër gi. dafa dem mbadet. daa dem mbadet. def fa ab tóoj. def gudd. bu gudd. boo xam ni. boo dafa samp yaari jën. daa samp yaari jën. ci bopp bi. ci bopp bi. fa lay joggi. fa lay joggi. door a ci kaw a àgg ci kaw tóoj gi. bu musaa xëy. ne su musaa xëy. mbuus mi mu yor. mbuus bi mu yor. ci la def ay garabam. ci la def ay garabam. di faj siti. di faj di faj ngaana. di faj ngaana. ak mboolem xeeti feebar yi. ak mboolem xeeti feebar yi. ba nit ñi xam. ba nit ñi xam. duñu ko fekk ci kër gi. duñu ko fekk ci kër gi. di ko fekk ca tool ya. di ko fekk ca tool ya. mu leen di faj. mu leen di faj. bu nee su mu ñibbisi. mu ñibbisi. Hmm. am na mag mu ma nettali ni am na mag mu ma nettali ni Baay Ibra Penda maam Ibra Penda maam ma dikka Roqaya maam ma dikka góor gu mag ak góor gu mag képp ku ci mos a soxla Cheikh Canaba Amari Ndaak képp ku ci mos a soxla Cheikh Canaba maam Amari Ndaak da ngay dox da ngay dox ba jub tóoj ba jub tóoj gi wut bant wut bant damm ko damm ko mu ñu toll mu ñu toll mu geesu mu geesu ni kooku du diw ni kooku du diw mu ne aha kay mu ne aha kay waaye amoon nañu wormaam waaye amoon nañu ormaam wek ko wek ko ak xam gëddaam a xam gëddaam ba duñu ko yee ci nelaw ba duñu ko yee ci nelaw ku jub ku jub tóoj gi rek ne ku jub tóoj gi rek wut bant wut bant fott fott bant ba tool boobu nag tool boobu fi la ñu mu xaddam yëpp la ñu defaree nag mboole mu xaddam yi tool tool boobu fala tarbiya mu xaddam yëpp. fala tarbiya mu xaddam yëpp. tool boobu. tool boobu. ñàq ca. ñàq ca. taalibe yu mag yëpp. taalibe yu mag yëpp. ca la ñu defaroo. ca la ñu defaroo. kon tool boobu. la fa xew. la fa xew. di fa ay. di fa ay. di dimbali taalibe di dimbali taalibe yi. du man nee du man. mi ngi ci tool ba. ca tool ba. lay xew. nee lay xew. du man dama ko faa fekk. dama ko faa fekk. te su may dem. te su may dem. falaa koy ba falaa koy ba. maa ngi woo taalibe yëpp. maa ngi wax ni. maa ngi wax ni. ku seet. ku seet. ba bis boobu. ba bis boobu. nga am ngant. nga am ngant. jëndal liibaru gura. jëndal liibaru gura. mbaa mbuusum tàngal. mbaa mbuusu tàngal. mbaa mbuusu miskit. nga yónnee ko ca ko ca tool ba. Mm-hmm. ku tële. nee ku tële. mënoo ñàkk mënoo ñàkk. jëndal sa gura. jëndal sa gura. jëndal sa tàngal. jënd tàngal. mbaa nga jënd sam ndox. mbaa ndox. mbaa nga jënd sa miskit. mbaa miskit. jaar fële. nee jaaral fële. demal ca mbooloo ma. ca mbooloo ma. nga jox leen. nga jox leen ko. dem nga àllarba. dem nga àllarba. tool boobu. nee tool boobu daal. la ca taalibe di jëlee. la ca di jëlee. Amari Ndaak ko fa def. maam Amari moo ko fa def. tool boobu. nee tool boobu. loxo yu mu jógee. loxo yu mu jógee. jàll ca loxo yi ca ca loxo yi ca ngi sant taalibe yëpp. maa ngi sant taalibe yëpp. di leen ñaan. maa leen di ñaan. na ngeen nangul tool boobu. na ngeen nangul tool boobu. Hmm. tool boobee. tool boobee. naka tool bii. mooy comme tool bii. rek rek. dama nee maa ngi bëgg. lu ma liggéey. lépp lu ma liggéey. ak nu mu mën a toll. ak nu mu toll. ma jox ko njabootu Amary Ndak. ma bëgg koo jox njabootu ma Amary Ndak. laa fas yéene. loolooy sama yéene. Mhm. man. nee man daal. Asek. sëriñ Asek. samay addiya. samay addiya. samay weexal a ko samay weexal a ko ëpp. man samay weexal yor ma. samay weexal yor na ma. ci ñaan. mu faj aajo doy na ma sëkk. doy na ma sëkk. mën naa koo dunde. mën naa koo dunde. lii ma wax. lii ma wax. sama doom yi gëm na sama doom yi gëm na ko. maa ngi wax taalibe yi ni leen. ngi waxaat taalibe yi ni leen. ca tool ba. na ngeen dem ca tool ba. ngeen wut fa yàlla. ngeen wut fa yàlla. di ngeen ko am. di ngeen ko am. maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi ñëpp. sama jëwriñ. sama jëwriñ. sëñ Ibrahima Seck. sëñ Ibrahima Seck. taawu sëñ Abdourahim. taawu sëñ Abdourahim. papa. ma ni ko ah. mun ma ba nawet bi jeex. mun ma ba bi jeex. sama yéenti fas. sama yéenti fas. seen seen alarba. yaa ko moom. yaa la si ma wax. fii toog. fii laay toog. dégg ñu ne ma ngay bay. dégg ngay bay. fii toog. fii laay toog. dégg ñu ni. ma ngay faru. ma ngay faru. ba mu ba àggal. ba demaguma fa. fa. Hmm. maa ngi koy wax Baye Ibrahima Seck. maa ngi koy wax sëñ Ibrahima Seck. moom Baye Taala Xaar. mu maa ngi koy wax sëñ Jibi Seck. maa ngi koy wax Seex Jibrilu Seck. tool boobee. tool boobee. nañ ma fa fekk. nañ ma fekk. maa ngi koy wax. maa ngi koy wax. sama taw bi doomu sëñ Mat bi. doomu sëriñ Mouhamadou li sëñ Cheikh Ahmad Tidiane. maa ngi koy yëgal tool naa ko tool bi. na ma fa fekk. na ma fa fekk. duma ci muñal kenn. duma ci muñal kenn. na ngeen ma fekk ca tool ba. kuy ñëw. kuy ñëw. na nga sol ab turki. na nga sol ab turki. sëñ Modou fekk ca tool na ma fekk ca tool ya. na wàcc na wàcc piliyaanam bee. fekk ma ca tool ya. fekk ma ca tool ya. te bu ñëwee. su ñëwee. na indi ab turki. Abdou Karim Seck. Mhm. sama doom sama jëwriñ. nee sëñ Karim Seck bu bàyyi mbay sama doom sama jëwriñ. bu amoon ay tànk. nee ah moom de soo man ay tànk. Mhm. dama ko naan fekk ma fa. dama ma fa. waaye nag. waaye. gurag mbooloo mbooloo ma. na ma fa fekk na ma fa fekk mbooloo ma. na ko jënd. na ko jox ko kenn. jox ci gone yi kenn. mu indil ma ko ca tool mu indil tool ya. nu ŋàdd ko. nu ŋàdd. séddale mbooloo ma. boo xam ne mun laa ñëw. taalib bi mënut a ñëw. ndox. indi ndox. baa nga indi guro. baa nga indi wala biscuit. baa biscuit. baa nga togg kafe baa nga togg café. def cee tarmuus. def cee tarmuus. ñëw séddale mbooloo waaye ñëw séddale mbooloo ma baa nga togg ataaya ñëw xelil mbooloo ma. waaye waaye. pardonné wu ma kenn. nee moom daal. pardonné wu ma kenn. alaaji ngañ Demba Sarr. dama koy sëf ni mbaam. lii moom dama ko ciy sëf ni mbaam baa njàmme. dama koy sëf. nee dama koy sëf. ba muy sakk sakki. ba ndox mu doy. ndox mu doy alaaji ngañ. guro gu doy. guro gu doy. miskit mu doy. miskit mu doy. café gu doy. café na fekk ca tool na ma tool yi alaaji ngañ Sarr. te na gaaw te nag na gaaw. ah buñ ci jotee nee buñ ci jotee bu mu naajee. macha allah nee nuyuwaat naa ñëpp. Mhm. jërë ngeen jëf. Mhm. sama doom nee na maa ngi sant alfa ak ñi mu ko seqal nga réseau bi. di jotli kàddu yu rafet yi. ñooy yu rafet yi. di fàttali wëlëre yi. ñooy fàttali yi. ñooy daas taalibe yi. yal na yàlla fay. yàlla fay leen. maa ngi nuyu ñëpp. naa ñëpp. maa ngi ziar naa ñëpp. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. wa rahmatulahi. wa maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi kon euh, woote baa ngi noonu muy woote euh, mbadet euh, bu Baye Cheikhou Thiénaba Baye Serigne Assane Seck yàlla na fi yàgg te wér ma fàttali leen bis bi ni leen ba le 31 juillet 2024 la bu ko defee rek ñu teel a daje ca tool ya comme ni ñu ko daan waxee nag ku mën a dem mbadet na dem ku mënta dem na dem ku mënt dem ba xam ni mënta dem tamit na dem rek euh, dem ca mbadet ñu bay ko mu set macha allah yal na yàlla euh, may ñu ñu fekke ko tal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo doon moo doon woote bi xam naa euh, jox waaw bàyyi sëñ Assane dégg ko nee na ku mën a togg mënal café sax yóbbu bu ko defee rek xéewal lay nekk ñu tàllal loxo yi bàyyi sëñ Assane ñaan lu mu ñaan yàlla na yàlla nangu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbi amin amin